mooy dafa am wax yoo xamante dafa am ñu ko jël wax ko suñu ki nga xamante mooy suñu leader nekk suñu ministre ñu teg ay baat li nga xamante nii si kawam la ñun tamit ñu ñëw di ko dindi ca quartier ba mu dañu àndal fii li nga xamante nii moom la nit ñi di jàpp mu ñu ciy dimbali ci wàllu ceeb wàllu diwlin wàllu ay matelas yooyu yëpp la ministre dafa ko fay andi soo fi jël suñu xale defal ñu ko ay formation jël jigéen ñi tamit defal ay financement madame le ministre limu def jowal du xaaj du jeex kon nak bu ay jigen taxawé ci dëkk bi wala ay goor ñew taxaw naan madame le ministre def fi dara madame le ministre def dara ñun dañu ne madame le ministre ñun ñoo ne ko won demal dinañ la jappalé ñew nañ fi ay ñoom Matar Lo ak Seynabou jeng bi nga xamné mom déjà xamul sax kañ ba ban quartier la dëkk mom mu ñew fi né daru salam lay waxal alors que limi wax yëpp dara amu ci ñoom ñu taxaw né comité de salubrité bi nga xamante ne ñoom ñu fi ñu taxawé defee fa sen point de presse ñu li ñoom ñoo nettoyer li ñoo nettoyer alors que ñoom defuñu fa dara ñi taxawon kérok di wax fi ni amul ci benn jeune bo xamantene ne bokk nga kérok fofu non ñuy gas ñun ñu nekk di gas di défar madame le ministre gis ko gis liggéey bi ñu ki mom mu indi ay auto jàppale ñu ne li ngeen di def ni loxo mënul ko défar kon nak andil lan li ngeen défar ko bu taw bi ñëwé mëna jallalé mu dem mom mu nekk ko xamantene ñom dañoo nekk di wax di wax di wax di wax mais ki nga xamantene mo moo nekk ci dëkk bi muy monsieur le maire kenn tuddul turam té mais bala ñoo wax waxu madame le ministre mais maire bi anamu